ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di leen sant bu baax ci seen yitte yi ngeen bàyyi ñu fekke si woote bi ñu woote ndax woote bi bu fekkee ni yenn soxla ngeen ko defe naa ñun ñu ñoo lañ ko gën a soxla parce que bu ñu la dénkee liggéey liggéey bi dañ koy bëgg teg ci yoon def ci li nga ci war a def ndax. Euh, ay jullit lañu ñun ñëpp dañoo am gëm-gëm muy musulman muy beneen xeetu topp yàlla donc liggéey ci jàmm yàlla la bokk kon bokk lii li ñu féetale ñu njaboote leen dañ ko bëgg di doxal ni mu war doxe looloo tax saa yi ñu demee bitim réew ñu koy président di defee moom ci boppam dañuy bëgg di dajeek njaboot gi di waxtaan ak ñoom di seet seen tolluwaay xam aussi lan mooy seeni jafe-jafe ci foofu ñu ne lan mooy seen jafe-jafe ak li ñu yaakaar ñu régler leen ko Sénégal fi ñu ne ndax ñu mën a jëflante ba xam mbir mi naka lañ koy euh, euh, defar mu baax mu rafet euh, loolu tax nag ñu jàpp ni ci ndigalu président de la république ñoo nañ fii suñu visite bi naan benn bés rek la muy suba lu mu xat-xat-xat war nañu mën a am jataay bi donc ma leen ci sant di leen ci gërëm euh, li des mooy euh, ñu ànd ak délégation bu takku nekk fii ci sama wet kii toog ni ambassadeur la ci ministère bi la ne mu ngi tudd Ousmane Diop moom mooy toppatoo lépp loo xam ni mooy Europe mooy Amérique fii nag ci Amérique la bokk donc mu yore département bu rëy rëy rëy ñoom lay jëflanteel visite bi moom moo ko préparé ki nekk ni moom mooy suñu premier conseil suñu ambassader ambassade bi nekk Brésil xam ngeen Brésil euh, ambassadeur bi fa ne moo uufaale dëkk yi nekk fii yëpp muy Argentine muy Chili muy Équateur ak feneen kii nekk fii sama càmmoñ euh, moom it monsieur Kader Ndiaye la mu ngi nekk chambre de commerce internationale de Dakar vice président la moom la ñu toftal euh, ci président Abdoulaye Sow ñu war a ñu mu ñëw nag seet suñu diggante Argentine koom-koom bi ak relation commerciale yi industrielle yi naka lañ koy mën a wéyal kii topp ci moom jóge ministère de l'élevage waa maam maam Mbaye Ousmane Ousmane Mbaye ndax Argentine fii yéen ñu ko gën a xam ñun bu ñu buggee am yàpp bu cher bu neex Dakar dañu naan Argentine la jóge donc defe naa élevage bu ànd ak ñun ci biir délégation bi kooku ñëpp xam nañu taxawaay bu am solo bu mu war a taxaw ci liggéey bi euh, am na keneen ku war a jóge ministère de l' agriculture mais yàlla def euh, mu am ay ay ay ay jafe-jafe pour jokko bi pour mën a ñëw euh, looloo tax ndax visa am teeluloon a génn donc ñun ñi fi ne ak protocole bi jóge ministère bi ànd ak man donc bu fekkee ni d' accord ngeen ñu sàkku ñaan ubbi jataay bi ñu delloo leen parole bi. ku ci nekk loo am looy wax nga wax ko lu ñu am lu ñuy tontu ñu tontu ah fàtte naa le voilà c'est le voilà Abdourahmane Abdourahmane Sa Diop Abdourahmane Guèye voilà voilà Abdourahmane Guèye mooy premier secrétaire noonu la de c'est le premier secrétaire suñu ambassade bi nekk Brésil donc muy seen ambassade donc defe naa euh, dañ leen di Aliou Badara di leen di delloo kàddu gi ñoom euh, ñu ubbee ko ñaan euh, ñaanee ba pare nag commencé waxtaan bi jërë ngeen jëf d'accord auzu billah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi karimi bi furudin wa sunan alhamdulillahi rabbil alamin mbokki jullit mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu nuyu bu sell te moo di assalaamu aleykum wa ah nuyu Mouhamadou di ñaan mu yàgg fi lool di ziare bu baax a baax mbooleem kilifa yi nga xam ne ni ñooy kilifa yi diine te nekk Sénégal muy diine lislaam wala diina bu mu mën a doon te ñëpp jëm ci buumug yàlla sunu borom gi ñoo ngi leen di nuyu euh, euh, di santaat yàlla bu baax di la nuyu bu baax a baax yow mi nga xam ne ni yaay kilifa gi nga xam ne yaa jóge ca Sénégal soxna ay Tall Sall ñoo ngi lay nuyu nuyu bu sell di la dalal di la nuyu nag ci kàddu jëwrinu Serigne Touba ji nga xam ni moo nekk ci dëkk bii Touba Argentine di jëwrin Mor sàll yàlla dogal waxtu wii dafa nekk Sénégal ngir def fa la yàlla dogal mu war faa màggale màggalu Touba waaye léegi rek ñu ngi jokkoo ci téléphone kon ci kàddoom moom la ñuy waxee te it euh, am na représentant bu fi nekk itam nga xam ne moo waroon na ñëw. waaye daanaka tey jii moo des ci bisu màggal mbokki taalibe yi xat lool nekk ca barab ba jóorin bàmba ñang ci la ma booleeg sëñ bàmba jonn mii ne ma naa leen fi teewal kon nag dañuy wax ci turu mboolem kuy ab taalibe Serigne Touba ne ci dëkk bi waaye mbooleem kuy ab jullit nekk ci dëkk bi ci kàddu jëwrin jëwrin nee na mu ngi lay nuyu mu ngi lay dalal ndax bu fi nekkoon day dal di déplacé wu dal di ñëw ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni man kaana yu'minu falyukrim dayfahu dafa wax ni képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis pénc boo amee gan danga koy dalal da nga koy teral kon jëwriñ nee na mu ngi lay nuyu mu ngi lay ziyaara waaye di dalal mboolem délégation bi nga xam ne ànd nga ak ñoom di la yóbbante itam ab nuyoo ci président tous les sénégalais te mooy président Macky Sall ndax kat nguur moom yàlla sunu borom moo koy fale gannaaw moom la fi teg kon na nga koy ñaanal sunu borom defal ko jàmm defal ko yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak moom di liggéey euh, gannaaw loolu itam euh, kàddu yi ñu jëwriñ wax ni nan la ko yeggee euh, lépp rek day delluwaat ci njabootuk Sénégal gi nga xam ne mooy sénégalais yi nekk ci dëkk bii seeni yitte ak seeni soxla mooy kàddu yu jëwrin mooy yittey jëwrin mooy ay soxlaam te soxla yi weesuwul a ah, ku ne xam na ne Argentine nekk na dëkk bu sori lool sénégalais yi am fi jafe-jafe këyit eh, xëj na loolu moom ñoom Moustapha ak ñoom Ahmadou Bamba mii danañ la ko gën a yaatalal waaye jëwrin bi nu diggante léegi téléphone nee na ma Abdoulahat waxal nu soxna si ni ko oh, lii di wàllu casier judiciaire doon na lu jafe ci mbokk sénégalais yi nekk Argentine eh, lépp lu mu ci mën a yombalal ba mu jàppandi casier judiciaire jafe na lool sénégalais yi fii Argentine jëwriñ nee na loolu moom dafa doon yóbbante boo xam ne daf cee préciser ngir nu mu mën a jàpp ne ci sénégalais yi mu yomb euh, te ngeen xam ne njaboot gi fi nekk seenu njaboot lanu ndax fu nu jógee sori na lool nekk fi di liggéey di jaamu yàlla ndax liggéey gi moom sunu borom moo nu ko sant ndax talabul xalaali fardun yantami ala kulli muslimin la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax sàkku lu lew farata la te mooy liggéey ndax mënoon nañoo toog tey Sénégal di leen sonal waaye defuñu ko danoo ñëw bàyyi njaboot nekk ay responsable kon nag lépp loo xam ne ni lu leen war a yombalal seeni kayit këyit la jëwriñ nee na ngeen taxaw ci ci wàllu cas judiciaire beneen bi ci des mooy euh, euh, doomu adama fi mu juddoo la xam waaye xamul fi muy bàyyi ko am nañ fi ay mbokki Sénégal yoo xam ne itam dañ fiy ñëw waaye suñu borom day dogal ñu war ñu ñu noppaloo fi te itam loolu. sunu borom daf koo bind mu ànd ak nun muy al mawtu xalaqal mawta wal xayaata sunu borom daf dee la njëkk a bind muy man di jëwrin di keneen kenn xamul kañ nga fi jóge kon nag loolu itam nee na mu ngi sàkku Sénégal yi nga xam dañ fiy bàyyeekoo ngeen ci def ak yomb nal di dégganteeg autorités yi nekk fii euh, ba loolu itam koor bu fi faatu du fi yàgg te itam du jafe ngir ñu mën koo jébbal ay mbokkam loolu mooy kàddu yi nga xam ne ni moom la jëwrin yóbbante ne nañ la ko wax nee nag ñoo ngi lay dalal di la ñaanal ci barkeb màggalu Touba gi yaa xam li ngay sàkku li nga bëgg yaag ñi nga àndal yàlla na leen ko Serigne Touba yombalal ci barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi jox kàddu gi Alioune Ndiaye représentant daayira Tijaan alxaq yàlla mi am jéggal yàlla nu yàlla boole jéggal ci barke yonent bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu soxna si nga xam ne moo na taxa teewal fii di soxna Aminata Tall Aïchata Tall Sall ñu ngi lay nuyu bu baax ak délégation bi nga xam ne ñoom nga àndal ci turu sunu président Mouhamadou Ba ak sunu baay bi ñu àndal muy baay Ibrahima Ndiaye ak xadara kër Seydi Hadji Malick képp di jaajëfal ci ñëw bi ndax boo amee sa kilifa mu bàyyi yittim yépp ñëw di la seet si xool sa tooguwaay muy lu leen war waaye ñu nit mu war ñu ñoo teew fi jaajëfal dalal la ni la bismillah kon yàlla na yàlla fay bu ko defee rekk sunu mbokk Abdul Ahad macha allah kàddu yi am na solo rafet na ci ni mu ko waxe soxla yi nag am na fi yaatu na tamit suñ problème it bokk na ci fii ñu nekk wàllu këyit sëñ Abdul Ahad wax na ko waaye bu ñu sañoon it am fi ambassade ndax visa bu ñu ko bëggee tey dangay dem ba Abuja carte judiciaire boo ko bëggee légaliser da ngay dem ba Abuja am na ay jamono ñu dem Brésil waaye dañoo dem ba waa Argentine gii dañoo lànk ni bokk leen ci loolu tamit ñu ngi la koy jooy beneen ba ca topp mooy li nga xam ni ñun buñ jógee fii di dem Sénégal yenn saa yi dañuy am jafe-jafe te réew yi nga xam ni fi la ñuy jaar duñ am benn problème te ñun ñuy doomi réew ma te liggéey bu ñu mën a am suñu njaboot rek a tax waaye buñ demee foofa tamit yenn saa yi suñuy wëlis dañ koy dajjeeg di jël li ñuy së suñuy sëricaat di ñu sonal loolu it war ngeen ñu cee dimbali ndaxit lu am solo la loolu tamit doonan na ko fàttali loolu lañu amoon ci li nga xam ni mooy kàdd yu ñu doon yëkkati di ci làmmiñu Mouhamadou Ba ak mbooleem sénégalais boo nga xam ni yaa ngi ci biir Argentine ñu jox leen kàddu yooyu a ah, ba ñeneen di ñëw ndax xam naa ni tubaarkàlla tubaarkàlla kontaan nañu daal loolu lañ amoon ci kàddu yu ñuy yëkkati wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu salaamaaleykum eh, maa ngi leen di ziar yéen ñëpp maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di nuyu madame la ministre ay Tall sàll di la jox sa wàccuwaay di la dalal fii ci Argentine di nuyu ñi nga àndal ñépp di nuyu suñu góor yi nga xamante ni si ñoo fi nekk. di leen jox ñëpp seen wàccuwaay euh, fii nag comme ni ko ñëpp waxee rek euh, soxla am na fi problème am na fi comme ni ko góor ñi waxee mais ñun nag dañuy dugg ci cadre femme yi ay jigéen lañu nekk fi te amuñu doole euh, pour ñu am ay casier judiciaire comme ni ko ñëpp waxee metti na torop pour ñu am ko tey tamit dañuy bëgg a dellu suñu réew pour ñu dellu suñu réew rek problème bu mag la passeport jafe nañu carte d'identité la même chose euh, loolu yëpp nekk suñu problème ñu boole si ñun jigéen ñi nekk fii di liggéey te amuñu benn appachar appachar mooy maanaam ndimbal ah dañu fi doon dégg ay financement phase boobu ba léegi te musuñu cee jot suñu wàll gisuñu ko te dégguñu ko fenn ñu lay ñaan yow madame la ministre loolu teg nañ ko ci sa loxo ñun jigéen ñi dañoo nekk fii te fa ñu nekk dafa sori ak fi ñu dëkk ndax it nag su fekkee développement la rek ñoo ngi koy def ci Sénégal ndax ñoo ngi liggéey di dugal ci suñu njaboot te li ñuy dugal suñu njaboot googu ñoo ngi Sénégal ñu lay tàllal nag suñu loxo di bëgg ku ñu jàppale bëgg ku ñu dimbali. ñoo ngi fiy dégg ay assainissement maanaam terrain yi ñuy joxe wala kër yi ñu defar ba pare yooyu yëpp bëgg nañ ko parce que ay jàmbaaru liggéeykat lañu mais amuñu kenn ku ñu jàppale gisuñu benn yoon suñu bopp wax dëgg yàlla suñu sañoon it nga jàppale ñu bu baax a baax a baax. Eh, taxawuñu ah entre jigéen ak jigéen entre jullit ak moroomu jullitam ndax wax dëgg yàlla fii ci latin bi day ñun jigéen ñi fi nekk sonn nañu torop suñu sañoon nag dañ lay wax ni la madame la ministre jox nan la suñu loxo ñun bu neexee yàlla bëgg nañu lépp lu ngeen taxaw dinañ si taxaw de waaye bëgg nañu ñu nit nag ngeen taxaw ci suñu bopp taxaw si ñun ñu am ci financement fees yi am ci assainissement yi loolu daal lañu ñu amoon ci luñ lay wax ñu ngi lay dalal ak jàmm ah di kontaan si yow nag si ñëw bi ndax jigéen fu mu nekk su sañoon gis moroomu jigéenam mu fekk si ko fa loolu moo tax dañoo nekkoon si màggal gi mais dañoo bàyyi lépp lu ñu doon def pour bëgg a ñëw jàkkaarloo ak yow di la dalal ak jàmm jërë ngeen jëf ziar naa su jaam Aïssatou dinañu jàppale ndax kii dafa jàng ba jàng jotee maanaam daa tekki ba tekki jotee kii mooy kii dafa jàng ba jàng jotee boroom maamu tafsir yeeg aalim yeeg mu xàddam yi yow maam boo am tafsir la aalim la mu xàddam la yow maam boo am dem jàkkaa tax a nooj matt xalamaa ko tax a jaal yow ay tatu saal saal ku la déggul gis na ko yow ba ngay tekki booba kenn tekkiwul ba ngay jàng kenn jàng yow yow di ñu jàppale di ñu dimbali

bismillah axusubillahi min alsheytaani irajim bismillahi irahmaaniirahim rabbi israh li sadri wa lisaani xaw li mbokk yi ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullah di nuyu mbooleem ñu toog ci salle bi ñépp rawatina suñu gan gu mag gi nga xam ne tey moom la fi dalal muy soxna Aïssata Tall Sall ñu ngi lay siyaare bu baax di la wax tafadali dalal ak jàmm ak mboolem ñi nga xam ne ñoom nga àndal muy délégation bi di leen remercier bu baax di sant bu baax di leen jëfal ci ñëw ngeen ñëw fi waxtu yàlla muy mbégte mu rëy ci ñun mu mel ni xam naa ne sax yëf yi répétition doon rek ndax li ñu war a wax lépp ñuy juit wax nañ ko ndax tawat moom bu sa waram dogalee mu dugg ci barab daj bépp kenn ku ci nekk la nga ci yëg loolu nga ci mën a wax te loolu moo ñu daal ñu waa fii am nga tamit di Argentine Cheikh Abdoulaye mi jiitu léegi li mu wax ak soxna si ci ginnaaw léegi li mu wax loolu mooy jàngoro ji jafe-jafe yi wax dëgg yàlla bari na lool ndax fi ñu nekk dafa sori dafa sori Sénégal loolu te suñu borom dogal amuñu fi benn diplomate maanaam bu fekkente ne békk ni tey soxla nañ fi jënd yëte joo xam ne dafa war a jëm ci lu ñu war a lijjanti maanaam day jafe loolu ñu lijjanti ko exemple bi may joxe rek démb mooy carte conseil yi nga xam ne ñu ngi ko doon defar fii démb dëkk bi dafa rëy te dafa yaatu ñu nekk ci gox yu farañ fàcc ko maanaam ci misaal day am ñoo xam bu ñu bëggoon ñëw fii capital dinañ daw ñaari fan doog capital bu fekkete ne leen annoncé tey ci misaal ne leen commission dafay war a ñëw def fi passeport wala carte conseillère pour ñoom ñu ñëw fii rek du yomb te mission bi bu ñëwee temps bi muy jël dalul doy benn fan lay doon wala ñaari fan te du mën a déplacé wu dem ci yeneen gox yi léegi ñi nga xam ne ñu ngi ci gox yi sori ñoom dañuy am jafe-jafe duñu mën a jot ci loolu carte conseillère yi nga xam ne defar démb bari na ñoo xam ne bëgg nañ ci waaye mënuñ ci am ndax mission bi fii lay am capital Buenos Aires demul ci yeneen gox yi loolu benn ci ay jafe ñu am la beneen bi ci topp suñu borom dafa dogal ki ñu yëkkati léegi wax na ni suñu borom moo na dund ak faatu tey bi arde am na tëmal alxuraan wax kenn ku ci nekk sama fan ngay faatu yàlla dogal na Sénégal yi fi nekk nag bu fi di wàññi ko ñun ñooy volonté wu jaayante kenn ku ci nekk yëkkati suñu juróom kiy joxe fukk kiy joxe ñaar fukk ñu dajale ba suñu borom dogal koor yi war a dellu Sénégal loolu ñu ngi leen ci ñaan ngeen jàpp nañ ci bu baax baax ci wàllu économie ndax soxla nañ ko gars yi dox dëgg yàlla ay jàmbaar lañ lool mbokki taalibe yi fi nekk yépp muy association ARSA muy acte de kenn ku ci nekk lool man da nga ko ci def ngir koor ci ay mbokkam waaye parfois dañu am ay jafe-jafe te am na ci faa jot te yaakaar naa ne yéen yéen suñu loxo nday moo leen fi bàyyi kon ñu ngi leen di ñaan bu baax ngeen jàpp nañu ci loolu bu baax baax moom laa ciy dolli mu mel ni am na solo lool te yaakaar naa ne mbokk yi ma jiitu léegi wax nañ ko muy carte yi nga xamante ne bi ne tey ci misaal am nañu ay kayit ndax dëkk bi fi jafe woon na lool ñu am ay kayit suñu borom dogal na nag ñun ñu ngi commencé am ay kayit am na ñoo xam ne moom ngi yaakaar a jot ndax déposé nañ ba noppi waaye parfois dañu am jafe-jafe da leen di intimar intimar boobu nag kayit yi leen laaj day am suñu ko ne foo bu baax a baax tamit ngeen jàppale leen ci bu baax a baax a baax intimar mooy ci misaal su fekkente ni da déposé ba noppi maam ñu wax la ne dañoo bëgg indi benn casier judiciaire boo xamante ne bi kii dañ ko apothichar légaliser ko ci consulat bi nekk Sénégal bu Argentine bi nekk foofu te léegi ñun amuñu kayit yooyu kuñ ko mën a jox directement compte mu ñu ko yóbbu foofu ñun amuñu ko loolu ay jafe-jafe la fii ne am na ñoo xam ne déposé nañu pare mais fi ne ñi ngi toog di xaar loolu moo tax mënu ñëw jël seen loolu mooy intimar maanaam gàllankoor boo ne dafa ci biir liggéey bi benn bi ki topp mooy que ni yaakaar naa ne su ma juumul te mu am solo te bëgg ñu bàyyi ko xel mooy ñun ñi fi nekk ñëpp ñuy góorgóorlu kàddu yi kenn rek moo na ko wax parce que ñun ñëpp benn lañ kenn lii rek moo wax li ñu bëgg a wax lépp mais soo xoolee kenn ku ci nekk acte de sénégalais ARSA bi mooy ñi ngi jéem ñu organiser wu ñi ngi fexe organiser wu kenn ku ci nekk nekk ci barab bi jéem a la nekkuñu sénégalais yi fii ci dëkk bi jéem a ñongal suñu nekk fexe ba su fekkee dara dal na suñu kaw ñu bokk ndey bokk bàyyi waxtaan ci suñu groupe ba déggoo xam nañu nan la ñuy solutionné problème boobu ñi ngi am yaakaar na bu baax ci soxna si ndax yow bi ñu la xamee ba léegi yàgg na la bi ñu tu tànk lañu la xamoon wax dëgg yàlla nga nekk xeexkat doon jigéen ju jàmbaare ñu ngi leen ñaan nag lii nga xam ne muy sëy ba ñu wax la ko bu dugg sa nopp ñi ngi leen ñaan nga saafaral ñu ko bu baax a baax a baax tam bañ a nekk loo xam ne rek da koy digg rek def sa taabal ñi ngi leen ñaan bu baax nga jàpp ci merci beaucoup jërë ngeen jëf parole bi Bamboy Thione acte des Sénégalais asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen màggal di tuub tey jégaluwaat baax di ziar kilifa gi nga xamante ni moo ñu fekk si tey muy madame la ministre ay Tall Sall ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la jox ziar bi nga jàlle ko ci compagnero yi nga xamante ni ñoom nga àndal di ziar itam mbooloo mi nga xamante ni tey. ñoom ñoo fi teew muy sénégalais yi nga xamante ni ñoo bàyyi seen yitte yëpp dikk fekke li nga xamante ni mooy jàkkaarloo bi nga xamante ni moom lan ak am ak yéen ñi nga xamante ni xëy na yéen jóge ba réew ma ñëw fekk si ñu fekk si seen doomu réew fii ziar boobu nag dañ koy teg ci loxo yi ki nga xamante ni le premier secrétaire muy Abdourahmane vraiment di ko jaajëfal avant tout d'abord parce que relation boo xamante ni tey am nañ ko ak nguuru Sénégal rek c'est grâce à lui lu ñuy am la ci moom lañ koy jaare lépp loo xamante ni itam lu ñuy sàkku ci wàllu gouvernement Sénégal la rek ci moom lañ koy jaare kon dañ koy jaajëfal bu baax di ko joxaat ziar bi di leen wax ni di leen wax ni je me nomme Khadim président ak de Sénégalais en Argentine ànd ak ñi nga xamante ni ñooy sunuy naataango yi nga xamante ni ñoom la ñuy àndal liggéey bi ñi nga xamante ni itam mooy daayira yeeg yépp tous les sénégalais ñu ñëw teew ci liggéey bi nga xamante ni mooy jàkkaarloo bi xëy na nag act des sénégalais bi mu juddoo léegi yàggul mais def na fi ay activités yoo xamante ni xëy na danañ indi tuuti ay rappel yoo xamante ni xëy na def nañ ko fi parce que yàlla dafa def am loo xamante ni daf fee amoon xëy na at juddu am neneen loo xamante ni noonu lay doxee doxin boobu nag xëy na dàqul la nga xamante ni xëy na noonu la ñee doon doxee waaye yàlla dafa def xëy na mbir bu amee tey nga ànd ak say mbokk di liggéey am na façon liggéey boo xamante ni boo koy doxee rek danga nga ko jàllale. yàlla def na nag act bi mu fi juddoog léegi sénégalais boo xamante ni am nga fi benn jafe-jafe danañ ci taxaw danañ ci wax danañ ci jëf nous sommes les ambassadeurs fii ci biir Argentine. te ambassadeur bi nga xamante ni ñun dañ koy def fii ci biir Argentine dañ koy def ngir lan ngir jëm yàlla ji rek tax ngir lan ngir sunu mbokk yi nga xamante ni ñun sénégalais en tant que sénégalais ñu bañ a am benn jafe-jafe fii wala benn xëy na diis diis goo xamante ni luy dal suñu kaw la ñu fexe protégé wu ba du dal suñu kaw ci biir loolu pandémie bi jaar na fi muy wàllu pandémie bi nga xamante ni moo fi jaar tey Actu des Sénégalais da doon collaborer ak yenn organisation yoo xamante ni lépp loo xamante ni dund la da ko doon jëlee ci organisation yi di ko jox sénégalais yi ngir ñu mën a dund ci biir pandémie bi itam acte des sénégalais fexe na ba organisation yoo xamante ni tey lépp loo xamante ni tey vaccin la wala lu mënti di doon fexe nañ ba sénégalais yi di ci accédé wu tey ci biir pandémie bi lépp loo xamante ni wàllu IFE la lépp loo xamante ni dañ ko doon fayeeku ci nguuru Argentine te doomu Sénégal doomu Argentine di ko fayee ko fexe nañ ba doomu sénégalais yi itam di fayeeku loolu ci biir loolu nag acte des itam fexe na ba lii nga xamante ni mooy wàllu document yi nga xamante ni moom lañ doon wax ñu doon am ay réunion yoo xamante dañ ko doon am ak waa immigration réunion yooyu ñu doon def nag yàlla def xëy na ñu mu doon réunion yoo xamante ni dure na waaye yàlla def na atteindre nañ objectif bi mooy sénégalais yi fexe ba am ay document fii ci biir Argentine comme ni leen ko suñu naataango bi waxee nag bi nga xamante ni tey document yooyu ñu ñu koy jox xëy na am na ay tramité yoo xamante ni xëy na yomb na wala yombul yoo xamante ni ay jafe-jafe la lu ci mel ni comme casier judiciaire yi nga xamante ni tey dañ wax ni casier judiciaire buñ la bu buñ la ko demandé danga nga ko war a yóbbuwaat Sénégal pour nga légaliser ko à l' ambassade d' Argentine au niveau de Sénégal yàlla def na itam am na ay réunion ñun ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy Cancilleria Cancilleria ba xëy na ser euh, euh, antécédent pénal yooyu yàlla def na ñun dañuy daje chaque crédit woo sénégalais yi nga xamante ni xëy na laaj nañ leen certificat Euh, antécédent pénal yooyu buñ dikkee buñ ko dajalee ñun buñ ko dajalee chaque vendredi ñu yóbbul ko ña nga xamante ni ñoom ñooy Cancilleria ñoom ñoo koy jël par voie diplomatique ñu yóbbul ñu ko Sénégal ngir lan ngir légaliser ñu ko loolu yàlla def na xëy na fexe nan ba atteindre objectif boobu itam lii nga xamante ni moom mooy certificat de identité yi ñu ngi ci doon jokko ak xëy na le premier secrétaire parce que dañ doon wax ni dem leen ngeen légaliser ci ko di Sénégal ñu xamal leen ni lii Brésil lañ ko defee te sunu xëy na sunu koo xamante ni suñu représentant boo xamante ni moo nekk Brésil moo koy def yàlla def na bi ñu ci jokkoo ak Abdourahmane moom itam mu bind benn not présenté ko fa nga xamante ni mooy ambassade Argentine bi nga xamante moo nekk Brésil ba ñoom itam xëy na recevoir na not boobu ba xam naa nañ ñu incha allah rabi danañ ko réviser ngir lan ngir lépp loo xamante ni nit am na ko comme certificat de nationalité dootuñu la intimar ci woowu kon nag ñun ñu ngi toog di di leen xamal ni fii am nañ fi jafe-jafe jafe-jafe yi nag mooy bëgg nañ fi benn représentant diplomatique boo xamante ni que ça soit ambassadeur que ça soit consul honoraire wala consul général parce que loolu ñu dimbale parce que boo nekkee ci réew tey te amoo fi foo xamante ni fa ngay wéeroo xëy na da ngay neex a ba ma xëy na nag ñun ñi nga xamante ni ñoo yor lu mel ni association yi wala lu ni mel tey danañ def lépp ngir lan ngir jàkkaarloo ña nga xamante ni tey danañ lor suñu doomu réew fii ci biir réew mi kon ñu ngi leen di ñaan lii nga xamante ni xëy na le président Macky Sall bi mu fi ñëwee am na loo xamante ni xëy na waxoon nañu ko ñu ngi toog di xaar depuis loolu nag xëy na pandémie bi jaar na fi moom moo tax lu ci bari xëy na coupé kon nag madame la ministre dañ lay jooytu loolu nga xamante ni tey moom lañu soxla muy am fi benn représentant diplomatique boo xamante ni danañu dimbali ci lépp leneen li mooy comme ni ko ñëpp waxee fii nit moom fooy dundee xëy na faatu mënta ñàkk corps yi nga xamante ni parfois dañuy daje deux corps wala trois corps yoo xamante ni dañ leen war a répatrier ñu dem Sénégal xëy na tramité bi Abdourahmane daf ñu koy yombalal waaye li nga xamante ni tey moom moo jëm ci wàllu économique bi parfois mu xaw a metti ñun lool ku ci ne nga laaj li nga xamante ni moom la am bu cotiser ñu fexe dajal li nga xamante ni moom lañ am ngir yóbbu koor yooyu kon koor yooyu ñu ngi leen di ñaan yéen ñi nga xamante ni yéenay gouvernement Sénégal ngeen ñuy jàppale itam di ci finance financièrement ci wàllu koor yooyu ngir lan ngir ñu mën leen a faciliter pour ñu mën a dem ci njaboot ga leneen li nga xamante ni itam ñu ngi koy jooytu mooy képp koo xamante ni xëy na dañuy am ay relation yoo xamante ni ay ay ay ay organisation yoo xam ne dañuy am ñoom ay relation ngir lan ngir mën a importer loo xamante ni xëy na moom mooy daara yi nga xamante ni moom moo nekk fii ndax en un moment donné xëy na am na organisation yoo xamante ni dañu doon offre offrir loo xamante ni ngir ay aliments yoo xamante ni ngir ñu mën koo yóbbu Sénégal mais boo amul opportunité boobu boo amul relation diplomatique boobu xëy na loolu doo ko mën a def kon loolu itam ñu ngi leen ci ñaan bu fekkente ni mën na nekk ngir loolu ñun. tey lépp loo xamante ni organisation la parce que am nañ opportunité bi mooy organisation yoo xamante ni tey bu ñu li ñuy jox muy denrée yi nga xamante ni moom la ñuy defaree fii ñu mën ko yóbbu fële Sénégal kon nag ñu ngi sàkk loolu itam ci yéen incha allahu rabbi ñu ngi jéggalu baa xam naa bu fekkente ni permettre ngeen ñu ko ñu jox sunu naataango bi dend ak ñun nga xamante ni mooy président Ndiogou Samb nga xamante ni ñoo ànd liggéey mu am loo xamante dana complété bu fekkee permettre ngeen ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di sant délégation bi jóge Sénégal ñëw fi di sant nos représentants diplomatiques di les de secrétaires qui son là avec nous tu ñu gën ci ràññee Abdourahman kooku moom dafa nekk sunu comme ni koy waxee ci espagnol compañero dafa mel ni eh, eh, Argentine la féete di beral nuyoo nag soxna Aïssata Tall Sall son excellence euh, madame la ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur di nuyu délégation bi nga àndal ñu jóge ci différents ministère différents ministères du moins di la remercier Argentine sori na trop mais ñi ngi suivre li nga xamante ni si mooy xew Sénégal grâce aux réseaux sociaux et tout le ministère des affaires étrangères mooy sunu ministre de tutelle kon tey bu nu amee opportunité mu ñëw fekk sunu fii sàkku dajeeg sénégalais yi du nu def lu dul remercier ko mais aussi euh, peut-être di am lu ma ñaan rek euh, ndax nekk na loo xam ni yombul c'est pas l'Europe c'est pas les États-Unis d'Amérique ba autorité yi di fa am fréquence Amérique latine yàlla def na y plus ou moins diggante Brésil Argentine Chili plus ou moins plus de quinze mille Sénégalais ou bien vingt mille donc bu nu amee opportunité bu mel nii dañ leen di ñaan rek vous les autorités dëgg la xam nanu ni xat na xam nanu ni euh, peut-être décalage horaire et cetera mais aussi il faut que ngeen may ñu cette occasion la ñu profiter ci mën a exprimer wu devant vous ñi fi ñi ngi remercier ñi fi jël parole ñëpp nag je crois que da ngeen a def briefing rek ci li fi am yaakaar naa ni yenn yenn détails yi jaru ko mais aussi yenn explication yi jar na ko parce que lii du lu yomb donc d'abord danuy remercier d'abord euh, ce centre-là depuis que sénégalais yi commencé di ñëw fii ci Argentine yàlla def na ñoom dañuy jouer rôle ñoom tamit euh, de de de de diplomate recevoir fi les sénégalais à travers seen jumaa ji comme ay jullit lañu dans l'ensemble les quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais hmm? waaw xale yi bu ñu leen mënee contrôler tuuti. mënu ma tënk loolu li may wax il faut li c'est une occasion il faut que ngeen wax li ngeen war a wax dëgg la duñ leen fi tëyee mu guddi dinañ ñu ko may c'est elle est pour sa et c'est euh, euh, c'est ministre de la république moom moo sàkku lii xam na lu tax mu sàkk ko tey il faut que ngeen xam il faut que ngeen xam aussi le rôle di ministère des affaires étrangères ndax tey lii fi femmes yi wax nii ñàkk xam li nga xamante ni si les politiques di président Macky Sall pour la diaspora sénégalaise la ñu war cee am des informations yoo xam ni duñu ko am kon donc c'est normal que ñu réclamer ko moom mu jox leen ci ay ay tegtal donc voilà si mhm. oui mais aussi il faut ñu jéem laa leeralal tuuti

non je comprends je comprends je vous remercie je vous remercie je je vous remercie voilà et euh, je vous remercie et donc di leen xamal ni aussi en tant que autorité Argentine aussi dañ koy remercier Argentine gii ñu nekk ndax. réew moo xamante ni si yaa nga fa amuloo fa benn représentant di représentation diplomatique mais nu yenn tracas tracasserie yoo xamante ni si ñu ngi ñu koy teg lépp ak à travers les associations yi fi nekk ak ay bonne volonté yoo xamante ni si ñi ngi fi donc dox diggante autorités yi Argentine ak sénégalais yi yombalal ñu lépp ba tax na wàllu kayit yi ñu fi doon wax effectivement am na mais deux fois de suite ñu ngi fii joxe këyit yi exclusivement les sénégal loolu tam il faut ngeen xam ko ba actuellement ñu ngi ci loolu di jox sénégalais këyit moom la président Bamba Dione doon expliquer benn problème bi ci am nag mooy bu ñuy joxe këyit dafay am lu ñuy laaj ni lii bu ngeen ko indee ñu jox leen këyit régulariser voilà léegi ci loolu bu ñu déposé li ñuy déposé comme ñoom tamit am nañu droit di saytu ci nit ki nekkinam ci wàllu justice et cetera ndax amul trace moo tax ñuy exiger antécédent pénal mooy casier judiciaire casier judiciaire yooyu d'habitude buñ ko daan buñ ko daan laaj sénégalais bi bu ñëwee bu jógee Sénégal ñu légaliser ko ministère affaires étrangères Sénégal indi ko fii dañ koy yóbbu au niveau du Brésil ñoom ambassade bi jot ko jox def ca lañ cay def jox ko ambassade Argentine ba Brésil ñu légaliser ko mu doog a effectif loola nag amatul Brésil googa moo amatul moo tax léegi ñu ñuy yabal Nigéria parce que circonscription Nigéria ca la Sénégal bokk ba bi président bii fi nekk ubbee sa diplomatie au niveau du Sénégal loolu moo waral mbir mi am nañ ci ay jéego tamit yu am solo grace à la COP coopération de, euh, de, de, du consulat de Sénégal au Brésil du euh, du ministère affaires étrangères fii mooy Cancilleria Cancilleria mooy ministre affaire étrangères ak les associations alhamdulillah ñu ngi koy suivre donc loolu mooy mbir mi donc euh, affaire cas judiciaire moom yaakaar naa ne avec seen naattango Cancilleria dina la ko gën a leeral problème mu lii fi femmes yi wax. mu ni dégg nañu ni effectivement les financements ak les cent mille logements c'est vrai euh, boo gisee aussi Amérique latine bi sénégalais yi fi nekk donc xawa a mm, xaw noo comprendre euh, li nga xam ne mooy politique du président Macky Sall loolu moo fi joxe fii parce que tout simplement politique yi nga xam ne le président Macky Sall da koo destiné diaspora bi à travers des financements comme FAISE DER cent mille logements et tout ñun dañ ciy dégg rek on a on fait des réclamations mais amul retour kon donc femmes yi loolu ñuy réclamer c'est une logique et sur le plan diplomatique dañuy remercier le président de la république di la remercier parce que gis nañu ni depuis bi mu la tànnee yokk ngeen jéego yu bari ci diplomatie sénégalaise à travers le monde kooku c'est une chose que nu salion la représentation diplomatique bi nuy wax fii aussi e dafay gën a yombal bien vrai que on a toujours Abdourahmane avec nu lu nu soxla danu koy régleel mais aussi buñ ko fi amoon comme li président Bamba di wax dinañu mën a am d'autres carnavals yoo xam ni ci suñuy pexee bopp par rapport ak les entreprises privées yi nekk fii et tout des opportunités yoo xamante ni si dinañ ko mën a translarar mu dem Sénégal loolu mooy objectif bi donc moo tax représentation diplomatique ne serait-ce que un bureau consulaire au bureau diplomatique au consul général quelle que soit l'appellation nu amal njariñ ça ne veut pas dire nag on on est on est en en comment dire dañuy diiroog mbàkk ak ak ambassade ba nekk Brésil que ça soit clair mais loolu aussi dina nu yombal lu bari parce que loolu moo tax association yi son obligés di jaar ci des organisations locales yu nekk fii ay des organisations d'argent d'argentin di jaar ci seen i kuréel pour mën a accéder ci yenn yi alors que bu ñu amoon représentation diplomatique boobu dina nu faciliter donc voilà je crois que grosso modo c'était ça le problème aussi euh, ci ñi fiy wàññi wàññiku yàlla na yéex. ah pour votre connaissance déjà ñaari koor ngi fi deux corps il faut que il faut le dire Moustapha il faut je crois que vous avez fait la situation nous avons un corps boo xam ne si problème mu Covid moo ko fi téye woon ça fait plus de deux ans ñu ngi ñuy doog a libéré ñu mën ko yóbbu Sénégal je crois que Alioune Diop saisiroon na la parce que on m'a informé que bi mu ñëwee Brésil waa Brésil wax nañ ko ko mu woola donc nga xam ni koor boobu c'est décanté actuellement problème financier moo ko fi téye yàlla def biñ ci nekkee keneen wàññi fi wàcc fi liggéey ñaari koor mi ngi fi te yàlla def na aussi conjoncture économique bi fii ci Argentine doy na waar ndax fu ñu doon wax dollar ay huit léegi dollar bi mi ngi ci trois cent doy na waar moo tax collecte bi xaw a yeex donc je m'excuse gudd na mais il fallait que ñu leeral détail yooyu bu ko defee mu mën a leer ci seen bopp leer ci ñoom aussi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa organisation bi ak représentation diplomatique fii Fès et la prise en compte des des besoins des Sénégalais fii en Amérique latine de manière générale donc grosso modo trois grandes trois grandes questions yi ngeen posé donc on va laisser Madame le ministre le soin de Merci. monsieur le premier conseiller mbokk yi maa ngi leen di waat bu baax a baax di leen waxaat encore sama mbégte jàkkaarloo ak yéen nga xam ni loolu ci ndigalu président Macky Sall lañ koy jëfee parce que gis ngeen ko ci télévision yi saa yu demee bitim réew dina toog ak njabootam waxtaan ak njabootam donc moom njiit lii loolu muy def daf ñuy won yoon pour ñun ñu nekk ci suuf ñu nit ñu mën a doxalee noonu kontaan nag. te di leen baaloo ak it parce que dañoo nekk ci waxtu màggal ku ne xam na màggal fu mu toll jullit yépp du murit rek donc bu fekkee ni bàyyi ngeen seeni yitte waroon daje foofu ñëw fii loolu ñun nañ ko war a rafetlu loolu mooy it li ñu def def fii dugg na ci màggal gi ci programme màggal bi kon boog yal na yàlla barkeel lépp lépp luñ fi wax ba tënk ko yàlla jàppale ñu loolu yëkkati suñu kàddu ñu mun koo wéyal jëfe ko yéen it ngeen mun wéyal jëfe ko ndax laaj ngeen ma ci lu bëri ma ne am naa lu bëri li ma leen di laaj kon boog yàlla jàppale ñu bu ko nee nga sàmm sa kàddu bu ko nee li nga diggee nga mun koo def ah ma leen di félicité bu baax a baax ci jataay bi parce que bëri na fuy ay doomu Sénégal di daje kenn du dégg sa morom li muy wax ndax xëccoo ndax yuuxu loo xam ne nag àndul ak yar àndul ak teey man di man ànduma ci te defe naa loolu kii jiite réew bi ci boppam moo ko njëkk wone ak loo munti ne ak koo munti doon ak loo munti wax dina taxu mu déglu lu mu tontu kon bëgg yéen waa Argentine dama leen di féliciter ci seen toogaay bu rafet ak seen taxawaay bu rafet te lii nag mooy ambassadeur Sénégal bitim réew ku nekk ci yéen war naa mën a jàpp mooy ambassadeur Sénégal foofu mu toog parce que ku ci nekk ci yéen ci ni ngay jëfee ni ngay waxee ak ni ngay defee ci lañ lay àtte ci sa réew sànq ñoo ngi jógee benn musée bëggoon koo méngale ak gore musée bi ñu ngi koy woowee ESMA ñu nekk fa 4 heures defe naa ba 6 heures passé secrétaire d'État aux droits de l'homme fekk ma fa ne ma man communauté yi nekk fi ñi ma si gën a naw mooy sénégalais ñu ñëpp fekke nañ te mu ne ma waxuma la ko parce que yow yaay seen ministre te nga ñëw fii dama la ko wax parce que dëgg la man damaa bëgg communauté sénégalaise parce que gis naa ni ñu taxawee gis naa dañoo bëgg liggéey ba ma tontu ko ma ne leen ñooñu da ngeen war a xam ni liggéey daan seen doole moo leen fi indi te li leen fi indi aussi dina yokk yéen seen koom-koom ndax Sénégal démocratie la yàgg na. amul kenn ku fa jóge ndax dañ laa persécuté amul kenn ku fa jógee ndax dañ laa noot képp ku fa jóge rek daan sa doole wuti lu baax moo la yëkkati kon boog bu ñu ñëwee seen réew am fi taxawaay bu rafet liggéey daan seen doole def nañu lu leen war mais kontaan naa di dégg loolu ci sama njaboot kontaan naa bu baax donc na ngeen xam ni li may wax ni du yéen ma ko wax argentin kilifa argentine moo ma ko wax donc su ma toogee fii war naa leen ko jottali. pour ngeen gën a yokkaat jàmbaar gën a yokkaat seen taxawaay gën a rafetal encore seen toogaay bu loolu weesoo ci li ngeen di tawat euh, ñu koy dégg ci ay bërëb yu bëri ndax xam ngeen immigration moom yéen a ma ko gën a xam ndax yéen koy dund maay ministre bi mais yéen yéen koy dund bés bu ne saa yu ñu demee bitim réew nañ dégg lu mel noonu lu si gën bëri mu am nag loo xam ne kooku particularité Argentine la dinaa si dellu benn bi mooy li ngeen di wax ci ay jafe-jafe kayit suñu kayitu bopp maanaam suñu passeport suñu kart nationale d'identité loolu dañuy dem fu bëri ñu koy dégg ndax Sénégal yàlla def ñoo nattoo ñuy tukki loolu bii Sénégal doone Sénégal ba léegi ci loolu la ñu yàlla nattoo ah alhamdulilah sant si yàlla bu baax. ndax am na ñoo xam ne bëgg nañ ko te mënuñu ko bëgg nañ ko te amuñu xel bu ñuy demee ba génn ñun nag yàlla may nañu bëgg nañ ko yàlla jox nañu xel bi ak pexe-pexe bi ba ñu génn di dem kon bokk war na doomu Sénégal fépp fu mu toog Sénégal fekk ko fa Sénégal fekk ka fa mooy kayit yi nga xam ni moom la yaakaar Sénégal te mu doon waree wareefu gouvernement Sénégal mu jox ko gouvernement bi jox ko kayit yooyu muy passeport muy carte nationale d'identité ah ministère ba nag def na jéego yu rëy ci anam yooyu ci ndigalu président Macky Sall mais ba tey des na c'est pas parce que def nañu jéego yu rëy rek que dañuy toog naan mbir mi baax na mbir mi baax na déedéet mbir mi des na des na lu bëri sax mais ñoo ngi si ñoo ngi si mooy dañ daan def saa yu ne ñu yónnee lu ñuy wax ay valise parce que da li ngeen war a xam mooy passeport yi. ministère affaires étrangères moo leen koy jox mais ministère de l' intérieur moo koy defar ministère affaires étrangères passeport diplomatique lay defar mais yeneen passeport yépp yi ñuy yor ministère de l' intérieur moo koy defar mais bu ko defaree ba pare nag ñun ñii ñoo war a jël jox leen ko indil leen ko indil leen ko bi nag foofu lañ amoon ay difficultés yu bëri jàppoon ci ay société yoo xam ne ñoo ko waroon indi léeg-léeg ñu dem léeg-léeg duñ dem léeg-léeg ñu naan boole ñu fayulee ñun avion bi du mën a dem indi ñu ay jafe-jafe président Macky Sall ne na ngeen seet fépp fu sénégalais yi bëree da ngeen fa samp benn centre de production maanaam seen passeport dootul dem ba Dakar ñu koy defar foofu ñu ne fa lu ñuy defaree passeport yi loolu waaw loolu am na ah macha allah loolu loolu am na Paris loolu am na New York defe na loolu am na Madrid mais ñoo ngi seet pexe nu mu amee fii Amérique latine ndax dañ koy def Brésil ndax dañ koy def Argentine dinañ seet fu mu gën a yombee ndax au lieu ngeen di dem ba Dakar wala waa ji ñëw fii def tuuti rek dellu dakaar parce que am na ku ko wax defe naan monsieur le président yow yaa ko wax parce que bu ñu ñëwee ñu def deux jours ak dëkk bi nu mu réyee mais loolu liggéey bu yàqu la mënul nekk. liggéey bu yàqu la parce que en deux jours mënoo dajale sax peut-être capital bi astamaanaan da dangay dem Cordoba wala da ngay dem fee wala dangay ngay dem fee wala da ngay dem fee donc centre de production mooy suñu jublukaay loolu lañ bëgg sampal leen fii passeport yi ak carte d'identité yi ñu koy mën a def fii donc loolu dinañ ko dinañ ko waxtaan tënk ko ak président Macky Sall euh, indil leen ko ndax seen comportement bu rafet loolu mooy encourager sa njaboot ngeen am comportement bu rafet jàppalu leen ci lu bon waxalu leen ci lu bon te ministre argentin na man moo ko wax kooku defe naa mat na seede donc na ngeen jàpp ni loolu ci loolu la ñuy dox pour yéen en attendant balaa loolu di am incha allah mission dina fi dellu siwaat nu mu gën a gaawee bu mission bi ñu may ko ay fan yu yu yu bëre pour mu mën a dajale lu bëre mun a defar passeport yi ak carte nationale d'identité yi parce que ce n'est pas normal qu'un fils du Sénégal soit à l'étranger du am passeport du am carte nationale d'identité kooku clandestinité totale la waruñu ko nangu te daan si taxaw incha allah beneen bi mooy casier judiciaire casier judiciaire bi sànq ba tey maa ngi laajte lan moo xew ndaxte man tribunal laay liggéey casier judiciaire fa lay génn mais Euh, euh, euh, premier conseiller Ndiaye expliqué na ko ambassadeur Ousmane ba xam naa lan la mooy authentification bi légalisation bi buñ ko defee ba pare ah, te defe naa sama mbokk mi mujj wax léegi nee dañ ko daan yóbbu ba Abuja parce que boobu ambassade Argentine Afrique de l'Ouest Abuja la nekkoon léegi ñoom ubbi nañu seeni ambassade Dakar bu ñu ñibbee sax. daañu seet lu gën a yomb loolu man xaw ma ndax Argentine ñoo ngi convention apostille waaw donc ñun tam dugg nañu convention apostille donc légalisation amatul convention apostille mooy tax ba kenn du légaliser sa kayitu morom casier judiciaire bu jógee Sénégal ngeen yor ko day dugg direct système Argentine direct amatul légalisation ñoom kayit bu ñu am indi ko Sénégal day dugg direct suñu système légalisation amatul ndax Sénégal depuis 1960 ñaata lañ signé woon apostille 66 lañ ko signé woon mais nu ñu gisee mbir mi nu mu nu mu taree noonu sénégal yi sonn ci ay légalisation ñun suñu ministère damay xëy suba gis rang ba ba mu dépassé gare gare de Dakar man leen waa fii lu fi xew ñu ne légalisation ma ne mais lii nañ si wut pexe président Macky Sall ne dugg leen convention apostille ci lañ dugg keroog convention apostée alhamdulilah rabbil alamin léegi légalisation amatul su ma ñibbee ambassadeur Ousmane dina ko waxtaanee ak ambassadeur Argentine bu nekk foofu ku ne indi ay kayitam ñu xam ñun ñëpp dugg nañu convention apostée comme ça kayit yi di mën a dem di dikk fekk légalisation amatul. beneen beneen jafe-jafe bi mooy. beneen jafe-jafe bi mooy rapatriement de corps mais dama bëggoon balaa ñuy avancer ci loolu ñaari néew yi fi ne benn bi temps Covid la woon maa ngi koy fàttaliku euh, ñu naan kenn mënul yëkkati néew fii temps Covid yóbbu ko ndakaar nañ xaar bu Covid passé bi Covid passé ci lañ ma ne léegi corps bi mun na senegal Sénégal euh, defe naa. pour man sax ñu woon na mais maa ngi comprendre léegi que ay jafe-jafe xaalis moo téye fi corps bi donc corps boobu ak beneen bi fi nekk incha allah bu ñu ñibbee daañu yónnee li war pour ngeen rapatrier ñaari corps yi comme ça loolu loolu ñu jox donc ñu ñibbi man su ma jógee fii damay dem New York assemblée générale mais ambassadeur Ousmane moom dina ñibbi bu ñibbee dina jokkoo ak muy Sarr ak suñu dage donc on fera le nécessaire. tu dis à la DAGE que j'ai donné instruction pour qu'on rapatrie les deux corps qui sont mais ñu waxtaan bu baax ci loolu ñun ñëpp njaboot lañu te yàlla ni mu sàkkee dund noonu la sàkkee dee am na sax bu génnee saar bi léegi wax wala kalmawt wala xayaat yàlla dee la njëkk sàkk balaa muy sàkk dund donc képp ku dund yaakaar nga dee yàlla nag moo xam fooy deewee man damaa defe ne léegi jot na bu dee dañuy waxtaan waxtaan waxtaanu njaboot di waxtaani dëgg te lii may wax nëbbuwuma ko waxuma ko da ngir Argentine ca assemblée nationale Sénégal laa ko waxee donc peuple Sénégal yëpp laa ko waxanteel nga ñëw ministère fekk budget boo xam ni amuloon sax budget pour rapatriement parce que coobare suñu président de la république Abdoulaye Wade la woon ak léegi Macky Sall ñu ne sénégalais bu dee à l'étranger daan la jàppale sa néewu mbokk mun a sa néew mun a dellu si Sénégal lu amuloon budget ba tey ñoo ngi huit cent million ci loolu huit cent millions loolu alal la te am na fu muy dem am na fu mu mën a dem donc il faut que ñu réfléchir réfléchir nag mooy di wut assurance boo xam ni ku ci nekk boo cotiser sa tuuti tuuti tuuti tuuti walla xool walla ko lii bu amee dina mën a dem ba am koo xam ne dina ànd ak néew bi benn nit walla ñaari nit ñu mën a yóbbu néew bi dellu si waat continuer seen liggéey mais loolu lu tax ñun duñ ko def boo waxee rek sama mbokk Haalpulaar yi sant lii ak yi sant Sow naan man duma ma cotiser pour dee mais comme yow xam nga yàlla dee la balaa muy sàkk dund xam nga ni xel lu yow di nga dee kay cotiser mais boo leen ñu man duma ma cotiser pour néew ah kañ ndax ci la bokk donc loolu. ñun ministère bi ñoo ngi si jublu bu baax a baax daal leen fi indil assurance assurance bi bu demee ba taxaw dootuma nangu ku may naan dellu si néew loolu dootul dugg sama nopp ñëpp nañ dem ci assurance bi c'est la solution les huit cent millions qu'on met pour rapatrier mais mun na dem feneen ci diaspora bi mun na dina am leneen lu muy njëriñ dem na dem na dem na ba benn bés dafa am koo xam ne daf maa woo ne ma ma dem le ministre damaa bëgg nga jàppale ma ma rapatrier benn corps te fu mu gaañoo soriwul Sénégal te waa ji multimillionnaire la moo leen ëpp alal moo ma ëpp alal fuuf waaw loolu est-ce que c'est normal est-ce que dañ ko def loolu ndax loolu ma ne ko noo yow duma la ko defal parce que néew ji woo doole parce que mën nga ko defal sa bopp parce que dangaa war yërëm ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te fii rek lañ yaakaar mais dañoo dem ba yaakaar ni loolu benn force la te du force dañoo dem ba yaakaar ni Sénégal mun naa jóoru alal boo xam ni loolu rek lay njëriñ te loolu xam nga ni mënul ne kon boog rapatriement yi fépp fu ma dem loolu laay wax damaa bëgg ñu si waxtaane ak dëgg bañ si demee xol demee si suñu xel demee si suñu xel mooy ñu wut assurance bi te ñu ngi koy taxawal bu boobaa ku ci nekk nga def ci si lu tuuti def ci lu tuuti mu ngi ma doon expliquer naan bu fekkoon ni France la defe naa ay 10 euros lay nekk jeex na ay 10 euros 10 euros si six mille six mille et quelques francs voilà loolu kenn ñaanu ko yàlla euh, je crois que c'est par mois ou voilà c'est quelque chose comme ça loolu en tout cas xaj na daal mën nañ ko doonte ñun ministère bi dañuy seet lu ñu teg subvention ne ñun par exemple par an daañu dégager nangam dugal ko ci assurance bi li si des yéen ngeen mun ko complété bu fekkoon nu ay 6 000 6 000 francs la mu mun a wàññeeku encore mais loolu yëpp ay waxtaan la ay pexe la mais nii nii nii dama leen koy wax de du continuer dina am bés boo xam ne day taxaw parce que lu amul avenir amul avenir. dëgg mooy dëgg waaw. te dëgg rek mooy dëgg te mooy mujje donc ñu waxante ko donc loolu daal ñu ngi nii mais en attendant on va rapatrier les deux corps euh, qui sont là dès que l'ambassadeur Ousmane rentre on va s'en occuper incha allah beneen bi mooy consul général consul général consul honoraire agence consulaire euh, en tout cas représentation Sénégal fii waaw c'est vrai que loolu c'est une demande légitime lu war la Euh, boo leen gisee ñu wàññi ambassade yi dafa fekkoon ne budget Sénégal dafa dem ba àttanatul fu ne ñu fay am ambassade ñu naan léegi nañ jéem a dajale ambassade yéen ñi nekk fii waa Chili ak waa fan Pérou voilà Venezuela yéen ñëpp ñu boole leen ngeen euh, Brésil mais wax dëgg yàlla ku xool sax carte bi xam na ni c'est des distance c'est des distances gis nga ñun balaa ñuy ñëw fii dañu waxtaan ak suñu fonctionnaires yi ba pare lii ngeen di wax ñoom dañ leen koy sàkkul balaa sax ñu dugg fii parce que su ma ñëwee il faut ñu joow leen dañ leen di joow joowaate bi mooy dem leen di woon naan waa lan mooy seen jafe-jafe ñoom balaa ñuy ñëw sax dañuy defal ay rapport ne lii am na lii am na lii am na lii am na donc bokk na ci li ñu joow ci yenn problème passeport yi problème carte nationale d'identité yi problème rapatriement yi ak bi problème waaw waaw loolu loolu daañ ko wax après waaw waaw daañ ko wax après donc ñu waxtaane si loolu ñoom ci seen bopp ñii ñooy professionnel diplomatie man duma professionnel diplomatie ministre laa mais su doon affaire avocat boo ma yeewee deux heures du matin dinaa la jox tontu bi mais comme diplomatie la damay wéeru si ñoom laaj leen ko ñu ne ñoom ci seen gis-gis fii jar na ñu am fii effectivement consul honoraire wala loolu laaj bu am solo loolu nag dañ ko waxtaane ak président Macky Sall waxtaane ko ak moom te ni mu ko xamee ak bëgg-bëggam di jege Sénégalais yi ak di oyofal seeni problème xam naa incha allah dina ko mën a nangu. bu boobaa ñu seet ban formule la ñuy am en attendant ambassade parce que ñoom ubbi nañu seen bos xam nga ñoom dañoo amoon benn Sénégal tëj ko léegi ñu tijjiwaat ko ndax am na ku ko wax diplomatie Sénégal macha allah léegi mu ngi dem bu baax a baax du ma ne man la président Macky Sall la parce que dëgg moo neex yàlla te bu jotee dañ koy wax man xanaa tombé waral ay gaaf rek mais président Macky Sall la ak ni muy taxawee ci biir àddina ak ni muy taxawee nekk avocat Afrique. ak lu muy jooytul Afrique ak li ñu koy déggal kooku sénégalais bu ne nga ànd ak moom nga ñàkk ànd ak moom war nga am fierté ci loolu man mii di ànd ak moom bés bu nekk ci bitim réew di gis lu muy wax taxawaayam ki je sais que c'est un avocat de l'Afrique donc ku nekk avocat Afrique war ngaa mën a nekk sa avocat njaboot donc boo leen ne soxla ngeen fii agence consulaire bureau consulaire consulat général balaa ambassade te xam nañ ni foofu lañ jëm parce que ñoom ñu ubbi seen ambassade nañ ñu laaj réciprocité ñun tam fa lañ jëm donc balaa loolu ñu am étape intermédiaire may leen loolu saa aussi incha allah on va y travailler dès notre retour à Dakar seet lu ñu ndëkk a war a samp fii pour oyofal leen mbir mi en attendant ñu mën a dem ci une ambassade normale régulière buy nekk fii Argentine mais xam nga tubaab yi ñoo koy wax. buñ la nettalee junni junni junni ñu la koy nettali nga ñëw benn bés nga gisal sa bopp ko gën donc xëy na li manqué woon mooy ñu ñëw ñu gisal suñ bopp voilà ba jàkkaarloo ak yéen beneen bi nag mooy kooku vraiment dama fay taxaw mooy sa mbokk jigéen ñi sa mbokk jigéen ñi vraiment njëkk sax di leen di leen félicité ndegam àll métti si góor astamaak jigéen donc ma xam ni am fit bi déjà ñu fii fekk si seen alaaji wala ñëwal seen bopp daan seen doole loolu rek c'est un courage exceptionnel ñun ñi nekk Sénégal bu ñu waxoon bàyyi leen li ngeen fa nekkee ngeen ñëw fii ah defe naa ñu bëre seen xol dina def nii donc maa ngi leen di féliciter di leen sargal di leen encourager di wax ni nag di wax ni nag ci lii ngeen wax financement FAISE effectivement am ngeen si droit FAISE a ngi dem fu ne te FAISE am na ku ko wax fii président Macky Sall moo xalaat ni que les Sénégalais de la diaspora particulièrement les femmes qui y war nañ am ay financement yoo xam ne dañ leen koy jox pour ñu gën a dëgëral seen tax waaye mën a daan seen doole ndax li ñu def fii moo ñu jàppale feeñu ñu ne dem na ba keroog dafa ne léegi je même faire DER parce que DER bokkuloon ci financement étranger mais dinaa ne DER léegi dina wutal ligne de financement boo xam ni ci xale yu jigéen ak xale yu góor yi nekk étranger la jëm parce que dañoo gis ni am na ay diaspora yoo xam ni dem nañu ba am nañu seeni doom ak seeni sët deuxième troisième génération de sénégalais à l'étranger ñoo ngi foofu nekk ay lu ndaw te amuñu ay jumtuwaay pour liggéey mu ne donc DER. comme c'est une délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes dina wut branche boo xam ni exclusivement étranger diaspora koy moom ñoo ngi si loolu fees nag en attendant am nañu ay budget yoo xam ni moo ngi ci circuit bi moo ngi ci yoon bi euh, amoon nañu jafe-jafe pour débloquer ko mais léegi ak ministre Abdoulaye de jàll signé nañu lépp lu war financement yaa ngi génn bu génnee dinaa ne madame Mbacke moo yor fees na def tournée fii Argentine Amérique ah, Amérique Amérique latine na def tournée Amérique latine waxtaan ak jigéen attention man Baye Fall bu jigéen la liggéey rek laa gëm liggéey rek laa gëm bu ñu leen joxe financement yi amul jëndal naa sama àllaaji xaftaan bu rafet day tabaski wala day màggal amul toggal naa ko ginaar ndax tey man maa aaye liggéey leen ngeen fay liggéey leen ngeen fay de ngeen remboursé suñu àllaaj yi respecté nañ leen lool ndax ñooy suñu titre wante nag bu def lii jotee def leen lii lu mu waree ngeen dimbali sax seen jëkkër yi dimbali seen njaboot mën a amal seen bopp njëriñ donc loolu laa bëgg ngeen koy def bëgguma nag ñu naan première fois financement femme argentine ci ay Tall la jóge te ah ñun kat remboursé wu ñu bëgguma dégg lool bu ñu na ngeen ko remboursé de bu ñu jeex na bu fekkee ay yoon fi ne kon boog xaala gas yi comme disent les Halpulaar seen financement dina ñëw ma toog seetaan ndax li ngeen liggéey ndax di ngeen remboursé ngeen góorgóorlu bu baax mais incha allah dina eh, wax madame Mbacke dina ñëw fii def mission waxtaan ak yéen seet. yëkkati seen financement jox leen ko bu soobee yàlla léegi léegi nag na ngeen constitué wu def seen liste yéen jigéen ñëpp ngeen def seen liste ñu xam déjà balaa ñuy ñëw ñaata ngeen tollu voilà combien combien vous êtes ak fan ngeen bëgg yëngatu pour ma madame Mbacké am une idée naka ban xaalis lay mën a indi dégg fekk nag lu lu lu am la du ay waxu caameen rek di wax di wax di wax voilà donc on est on est d'accord Fès madame Mbacké dina ñëw incha allah et l'ambassadeur Ousmane va noter ça beneen bi mooy la euh, les cent mille waaw les cent mille logements yéen du gis ngeen keroog ñuy joxe ay caabi ci télé bi xam ngeen lu indi loolu li ko indi mooy fépp fu ñu dem ñu naan am na suñu wàll ci logement yi. ñu ne leen da ngeen di war a organiser wu am ñu jóg naan logement yi sax daa amul dañuy coow rek daa amul man de waxuma sax président Macky Sall mais man mii yal na ma yàlla musal di wax loo xam ne du lool bi ñu wax ji bu mu bari suñ nopp ñu ne lii ñu commencé nañ joxe caabi yi ba ñu xam ne loolu am na waaw ñooñu jot caabi yi te ngeen gis ko ci tele ñooñu ñan lañu ay sénégalais mais dañoo organiser xam nga tey su ma toogee fii waxtaan bi neex ma ne leen waaw dinaa leen wutal financement fees te incha allah dinañ ko def dinañ rapatrier ñaari corps yi incha allah dinañ ko def nañ indi euh, euh, valise yu defal leen passeport carte nationale d'identité avant centre de production incha allah nañ ko def su ma leen ne léegi dinaa leen jox caabi logement duma ko wax parce que mënuma ko def xam ngeen pour lan organiser wu leen tant que amu leen coopérative ku leen ne dina leen jox caabi mu ngi leen di nax commencé leen def leen coopérative am ngeen ay kuréel yu fi toog am ngeen ay daayira am ngeen ay association am ngeen donc yéen presque seen organisation samp na parce que coopérative bi lii koy indi di dajaloo di dajaloo bu yàggee rek ngeen def daje bu mag ba woote seen assemblée général ne tey dañuy def coopérative des sénégalais d'Argentine samp ko boo leen ko sampee yéen xam parce que mbir mi dañ leen koy yombalal mais kenn mayu leen ko kër moom ku la ne may naa la ko bàyyi ko mu ne la yow nga dem continue mu ngi lay nax kër amul mayee de nga ne kër la sëñ Abdoulaye waaw daal bi ñëw ni ko kër kër da ngay kër kër yi ay jeex na waaw loolu la donc donc loolu la donc il faut parce que li état bi def mooy ñun de non non non président c'est très bien de me dire ça oui explicité très bien je vous remercie parce que dañoo seetlu woon ñaari mbir benn bi mooy ñu bëri nekk ci diaspora dañ doon yónnee seen xaalis seen njaboot yi détourné xaalis ba man avocat la am naa si dossier yu bëri waaw boo yónnee sa alal sa rakk sa nijaay sa tante sa bàjjen mu ne waa man kat amoon naa soxla alal bu dugg na fa nga yóbbu ko tribunal di nga am ñaari naqar sa xaalis dem na sa mbokk yàqu sa mbokk yàqu na ay drame rek lay indi loolu lañ bëggoon faj loolu nag pour faj ko président ne damay taxawal ñetti mbir benn bi mooy damay taxawal banque boo xam ni day jàppale euh, diaspora bi financer leen bu ñu soxlaa banque boobu c'est la banque de l'habitat gis ngeen ministère affaires étrangères ak banque de l'habitat ak promoteur bi ak notaire bi ñu signé ay kay donc ñun am nañu accord boo xam ni promoteur bi banque de l'habitat ak euh, euh, euh, notaire bi ñooy signé deuxième bi mooy notaire lu tax notaire bi dugg parce que notaire bi moo lay jox kayitu kër bu wóor parce que encore am na ñu bari ñoo xam ne dañu jënd ay kër ñu bind leen nii rek attestation de propriété bu demee ba war a ñu xool kër gi ñu naan fii sa tur nekku fi turu diw ci ne nangam nangam ñu demaat tribunal ba ilaa yow mi dindu jeex donc ñu ne notaire bi na taxaw bu képp koo xam ne yow bindu nga verse nga li nga war a verse ñu jox la sa kër jox la sa kayitu kër nga yor ko donc loolu moo am loolu nag boo koy def bu fekkee par benn nit ngay jëflante ba te ngay jeexal du jeex mais bu ñu ne coopérative argentine par exemple ñu ne ah coopérative argentine léegi fu mu nekk nii am nañu un lot 30 logements pare na ñoo ngi nii wala 30 logements ak di parcelles ñoo ngi nii yéen lañ koy jox yéen xam ku jiitu yéen a xam ku gën a versé yéen a xam ku gën a kii ngeen naan seddale ko seen biir yéen donc noonu la ñuy defee ce qui fait que ñi ngeen gis foofu yépp coopérative waa France la coopérative waa Burkina Faso coopérative waa Côte d'Ivoire coopérative waa Thaïlande xam ngeen Thaïlande bu amee Sénégal it warul bëree mais fexe nañu boo organiser wu ba am seen coopérative bu ñu jox leen seeni i caabi donc am na terrain yi am na promoteur bi mu ngay tabax xaalis ba banque bee koy joxe ngeen remboursé ko notaire bi am na boo leen demee ngeen signé seen kayit mu jox leen seen titre kër mais na ngeen def coopérative boo leen ko defee rek ñu avancé donc na ngeen jublu ci loolu ah euh, euh, euh, sëñ Abdou Ahad ak ñeneen ñi ngeen àndal yépp ngeen jublu ci loolu comme sa yombalal ñu liggéey bi ndax ñun seetuñu si dara lu dul di ngeen di daale seen doole bu ëllëgee bu ñibbi jotee boo leen ngeen am foo foo leen dugg fekk du luwaas fekk du dara yéen ko moomal yéen ko moomal seen bopp donc euh, soxna yi war ñëw te ñëwuñu lu gàllankoor loolu carte d'identité wala ñu laaj waaw léegi loolu loolu a dem Sénégal. a ñëw suñu doom yi a ñëw dana dana ça c'est la convention apostille encore qui règle ah, ça waaw waaw loolu mooy li ma doon expliquer sànq dafa am benn kayit boo xam ne président Macky Sall sant nañu ñu signé ko ci turu Sénégal mooy li ñuy wax convention apostille léegi kayit yooyu di dem di dikk di légaliser yépp amatul amatul loolu vraiment kooku moom euh, defe naa victoire bu bu la pour euh, la diaspora parce que ñoo ko yàgg di jàmbat ba ñu jublu si loolu ci ndigalu président Macky Sall kooku moom je pense que c'est bon ça mu voulait agir c'est quand ça entre en vigueur non non c'est six mois depuis qu'on a signé oui comme ni mu ko waxee Argentine Marie dama am sax dafa yaatu te Sénégal yi nekk rek capital fii d'ailleurs sax ñu nekk capital am na ni muy demee ñu ñoom fi ñëwee ñu nekk ay par exemple soixante-dix kilomètres biir capital bi ñu sax mën a teew waxatuma laa ñu nekk ay deux mille nangam. bu nu sañoon mission yu mission yu ñu jéem a xool benn période boo xam ne donc mission bi dina fi mën a ñëw au moins am un un mois. parce que quoi j'ai répondu à ça sans problème. non c'était par rapport au à passeport affaire yooyu mais carte consulaire. ah les cartes consulaires d'accord ça c'est d'accord c'est ça ils étaient là pour ça non. mais ils n'avaient pas posé. parce que mission mission passeport carte d'identité xam nga peut-être. waaw. fële lay jógee. Mm. waaw avec les avec les les les les valises mobiles yi. Mm. ak le euh, groupe circonscription yi. defal mm. leen centre de production loolu déjà am na. oui. je crois que même États-Unis centre de production la ñu la. c'est ça je crois que Sori Kaba bi mu mujjee loolu la waxoon ni ils vont faire tout pour rallier Argentine ci centre de production euh, États-Unis loolu amul ba tey ba léegi gàttal. base wala boobu léegi tamit jógee Sénégal pour vous étiez en mission ici pour la carte euh, pour les cartes consulaires non. bu nit allez-y en fait. Euh, oui. quel est quel quel est le problème. votre arrivée. oui. Abdourahmane est venu me parler. que l'association avait écrit pour demander l'établissement de carte consulaire. Oui. Donc on a jumelé les deux missions. Ouais. On est arrivé le lundi, mm -hmm. on a travaillé les Arandais et mardi, comme je vous l'ai dit, mardi toute la journée, on a fait les quatre consulaires. C'est ça. Aujourd'hui, vous devez commencer les activités, donc on ne pouvait pas faire deux jours. D'accord. Mais on en a fait le, Vous avez enrôlé combien Plus de 150 à il en reste beaucoup. C'est pas il en reste beaucoup. Bon, d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, on, ils vont repartir au Brésil. On va les instruire en leur donnant les moyens de revenir en Argentine pour une plus longue durée de séjour et, et, faire... Euh, d'accord. Oui. Oui. oui, mais, mais à partir de ce moment, c'est à, c'est à vous de nous aider, d'identifier voilà, les localités où y a des Sénégalais. Parce que vous faites que nous dem danañ dem dans une localité où il y a que trois Sénégalais par exemple non dafa lank rek je donne un exemple je donne un exemple il vaut mieux envoyer le billet à ces Sénégalais là qu'ils viennent ici ñu defal leen plutôt c'est pour dire que war nañ waxtaan ba seet quelle est la meilleure forme oui d'accord oui oui allez waaw mais c'est un problème. bàyyi ko mu wax bàyyi ko mu wax. bàyyi ko mu wax. chaque fois nga ñëw ñaan ma passeport yi toog leen les policiers avec moi travaillent jusqu'à deux heures trois heures du matin pour reprendre à sept heures huit heures on a fait ça sur combien de jours madame la ministre la première fois que j'étais ici en mission je suis retourné malade vingt et un jours monsieur était malade ici, je suis tombé malade ici. Mais les Sénégalais restent dans leur village jusqu'à 19 heures pour que nous, non, on va, on va se faire enlever. Ils ont failli nous séquestrer la dernière fois. C'est lui qui a appelé la police. C'est parce qu'il n'y a pas d'organisation. Et je sais qu'ils ils se sont organisés la dernière fois. C'était mieux qu'en 2010. ko c'est bien d'accord maintenant waa waa Ndiogu waa Ndiogu on on va maintenant essayer de conclure ñu ñu tënk waxtaan bi Euh, defe naa defe naa léegi tontu nañu ci sama xalaat bu gàtt tontu nañu ci jafe-jafe yi ngeen doon wax yépp li des mooy ni ma ko waxee ñu dellu Sénégal euh, kàddu yi nga xam ni ak engagement yi nga xam ne jël nañ ko fii ci seen kanam ñu wéyal ko doxal ko comme ça waxtaan bi mu am voilà mu am jeexital euh, yal na ñu yàlla may loolu ñu ñu ñu ñu mën ko def d'accord d'accord yal na ñu yàlla may loolu ñu mën ko def incha allah ba ku nekk nga bañ a euh, comment on dit regretter nga bañ a rëccu voilà li la fi indi woon yéen li ngeen ñu woon dalal si ma ak ma nit li ma ñu woon di waxtaan ak yéen ah defe naa nag suba dinaa tase ak sama naataangoo mooy ministre affaire étrangères bu Argentine looloo tax waxtaan bi am solo parce que bëggoon naa lépp loo xam ne jëlee naa ko ci sama njaboot ci ay jafe-jafe bu ëllëgee bu ñu toogee bu ñu toogee mu mën ko ko wax parce que yu bëree noonu lay régler loo xam ne di nga ko bind fukki yoon boo jàkkaarloog nit ki benn yoon ngeen mën a waxtaan. Euh, euh, euh, jëflante mu dindi mbir mi mu dindi gàllankoor bi donc bu subaa incha allah am naa séance de travail ak moom lépp loo xam ni jafe-jafe la ci doomu sénégalais te mu samp ci dëgg dinaa ko ko wax te am naa yaakaar bu baax ni dinañu déglu ci loolu dañ am dañ waaw dañ am saafara saafara ci loolu donc euh, ma leen di sant di leen gërëm di gën a sant nag ci seen tour yéen ñëpp ci sama tour ak tour président Macky Sall doyen Abagou bi defe naa mooy moom anam ah d'accord merci beaucoup parce que vraiment on de vous remercier chaleureusement maa ngi koy def di kontaan aussi di la ñaan sa taxawaay gën koo dëgëral gën koo nit moom loo defal sa askan rek niilul defal keneen ki mooy le professeur Babacar Traoré alors merci professeur vraiment yow it ñoo lay sant di la gërëm lii moo ñuy won ni que Sénégal ñun benn bopp la kenn mënu ñoo xar ñaar ndaxte fu ñu dem rek yàlla mais loolu nag diine bee koy def ak diine bu mu munti doon muy bu nasaraan bi muy bu bu bu bu jullit bi moo samp suñu xol yi moo tax duñu ñu mën a bon dañ mën xuloo dañ mën xeer dañ mën xarapante mais bu weesoo weesu la ñun ñëpp dañuy nekk ay doomu Sénégal loolu nag na si continuer te bu leen si kenn dindi parce que loolu rek mooy tax suñu dëkk bi di avancé sànq damaa tiitaru parce que dama dem benn centre boo xam ne dañu doon woowee dañu doon won fii seen détention arbitrée yi doon am ñuy reyante seen biir loolu ñu bëgg ko jumelage ak Île de gore man leen lii moom man def ma def ma def maa jaaxal ndaxte gore ay nit ñu weex ñoo daan ñëw di jàpp suñu maam yi di leen yóbbu seen gaal noot leen ñii dem amerique ñii ñëw fii Amérique latine ñii dem Caraïbes ñii dem fu ne yéen fii yéen seen biir yéen ko def doomu Argentine ak doomu Argentine man leen ñun senegaal dëkku Afrique lañu suñu dëkk musul am coup bi mu nee Sénégal ba léegi mosul am coup d'état lu mu metti metti lu mu tàng tàng tàng tàng ku ne xam na fooy fa ngay yem fi nga yem ku ne xam na ko am na loo xam ne duñ ko jéggi mukk loolu nag yàlla moo ñu ko may jox ñu xel boo xam ni tout le temps dañuy xalaat loolu jox ñu xol boo xam ne dañuy muñante suñu biir donc su ma gisee ay sénégalais yoo xam ne dañu naan santal ma sama naataango diw santal ma sama naataango diw dama ciy sawar sant leen muy moom mi Goudiaby bi ak moom mi Traoré sant aussi ñi nga xam ne ñoo fi nekk jiite kuréel yi muy bu tijaan bi muy bu bu bu murit bi muy bu association yi ñaari association yi di di ko ak jigéen yi di wax ci seen tuur muy organisation bu mag bëri na fu ñuy dem boo amee ko wax rek keneen jóg ni weddi ko ne ko man ànduma ci li nga wax sa bopp nga ko waxal man waxaloo waxtaan bi yëpp yàqu ñun bu ñu demee sax dootuñu sawar tey ku ma nee sénégalais argentine dina am ay image yoo xam ne day ñëw sama xel mais ay image yu rafet yu jekk lay doon kon boog yal nañu yàlla jàppale xam ne yàlla moom subhanahu wa taala mooy yor lépp yàlla jàppale ñu ba lépp lu ñu fi waxtaanee incha allah ñu jëfe ko ba ku nekk kontaan su ma fi ñëwaatee du ma sëgg di leen xool doo leen sëgg di ma xool allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alors ça tu le donnes ça c'est leur billet pour retourner c'est en dollar le billet pour l'assistance pour qu'ils leur passe waaw nañ joxe ñaar waaw waaw waaw waaw wax nga dëgg de. ñoom la maag maag ñii nga fi lim su ma su ma nekkee ci dëkk bi ber sama yoonu bopp saa yu ma xëyee ci Sénégalais yi laay xëy dama damm tey tey ji laa koy soog a xam laa jël nii léegi lañ ma rajo ne ma da ngaa damm depuis bi ñu ñëwee ba léegi ñu ngi ma waroon opéré tey man leen non sama sœur dafee ñëw dama koy bàyyi ba suba yaa ma yar yaa ngi doon taxaw sa fenêtre léeg-léeg ne booy bàyyi leen coow yi mais li ma doon ci dëkk bi nag sama yoonu bopp laa yor pour les sénégalais matin bi di soir ci seen affaire laay daw maa ngi police maa ngi tribunal ba jeudi bi it am naa jugement te nañ ma opérer suba dama ko ba ngir yow bon on peut ñoom ñoom li ñu jooy lépp man waruma ko mi ngi sumay poos ñoom li ñu la mi ngi sumay poos bu ma ba neexee argentin la bu ma neexee sénégalais mais justice sénégalais liñ lay ñaan nga toog fii confirmer ko rek ngir yàlla jàppale jàppaleel ñii dama def tout nag ba ne naa la gis wax ak yow ñi fi toog kenn xamu la man maa la xam di ngay avocat te li ma la xam nga si dara dawalal sa xel tuuti li ñuy def remercier la ñëw bi bàyyi say yitte ñëw toog tamit ñu wax la nga tontu ñu nañ yeggali loolu fii na am consul rek wala ambassade problème yëpp dina jeex problème yu ndaw yooyu rek lañ am fi amuñu fi yeneen détail merci beaucoup